asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi groupe daara yi mag ñi ahlu sunnati wal jamaa seen mbokk Mouhamadou Amine Sall ñu ngi leen nuyu baax leen ziar waaw kon vidéo bi ñi leen dugalal bu ngeen seetee ñu ñi nga xam yàgg nañ ci groupe bi xam nañ ni jàlloon na xëy na am na bari ñoo xam amatuñ ko dañ leen koy fàttali ba pare doog leen indil dëgg dëgg li ñu leen bëgg a wax euh, vidéo bi mooy Donald Trump ba mu demee Arabie Saoudite accord yi nga xam ni am nañ ko Arabie Saoudite journaliste boobu ci benn journal lay la nekk ci États-Unis mooy laaj mooy laaj ministre affaires étrangères kii di tontu kii doon tontu borom boobu rëy bi mooy ministre affaire étrangères bu États-Unis moom lañuy laaj muy tontu journaliste li mu ko jëkk a laaj mooy eh, ci lu aju ci wala li ñu a jot bokk ci lu aju ci Arabie Saoudite ak kor yi nga xam ni États-Unis am na kook Arabie saoudite maanaam ñi gën cee jagleel sax eh, saytu gi ñu leen di saytu pour mën leen jàppale jàppale goo xam ni amul gàpp pour mën a génnee Arabie saoudite ñu génnee fee salafiyé wahabiya ak terrorisme bi nga xam ni moo yi nga xam ni ñoo ànd ak ñoo ànd ak cosaanal islam ci àddina bi xam nga mu ngi leen di bërxal nee yii nga xam ne sii yoonu yoon wi nga xam ne sii mooy jàngale islaam yii nga xam ne sii ñoom yooyu lañ làmboo ci àddina bi pour nan lañ leen di jëlee Arabie Saoudite au lieu que waa Arabie Saoudite dégg ko ni pour nañ ñu ngi fiy jëlee islam ñu daal di d'accord ministre bi waajee koy laaj waa ji ni ko waaw ndax yan yan matuwaay ngeen préparé yan yoon moom la euh, ministère bi préparé nan la mën a yan saytu la bëgg a def pour Arabie Saoudite bu demee ba préparer pour soppi coppati yi ngeen fa bëgg a def Arabie Arabie Saoudite bu ñu d'accordee yéen yan matuwaay ak yan xalaat ak yan nattukaay ngeen bëgg a am yéen yéen waa États-Unis yow ministre bi ministre bu tontu ni ko waaw euh, ñun li nga xam si accord yi nga xam si am dañ ko accord yi ñu am ak euh, Arabie Saoudite laata ñu fay jógee ñoom commencé nañ ko doxal parce que bokk na ci li ñu jëkk d'accord euh, maanaam créer benn centre boo xam ne si centre boobu ci la ñuy xeexe alxitaabatul islamiyya maanaam euh, yi nga xam ne si moom la ñuy wax ci aje ci islaam di ko wax ak nit ci xutba yi ak waaraate yi maanaam waaraate yi nga xam ne si mooy am arab saudi pour xeex ni nga xam noonu lañ koy defee centre boobu ca la bokk te loolu bañ fa daataan jóge inauguré nañ centre bi maanaam créé nañ ko ci suñu kanam maanaam Arabie Saoudite dañ ñu dañ ñu leen loolu pour ñu xamal leen ni d'accord nañ ci dañ koy commencé ngeen inauguré ko bala ngeen dem loolu bañ daataan dem inauguré nañ ko muy centre boo xam ne si mooy xeex ak loo xam ne si waaraate woo xam ne day indi teengal la teengal ci diine ji di ko teengal ci ñi nga xam ne duñ ay jullit euh, centre boobu nee na ko commencé nañ ko laata ñu fay jóge te nee na ko visité nañ ko mu ni ko euh, ministre bi ni te centre boobu nag mooy saytu yii ñuy bëgg a wax yi ma lay bëgg yi bëgg wax nii maanaam euh, wax nañ Arabie Saoudite ni ko nañu defar ay téere ay livre nañ séddale yeneen i livre yu bees tàq yoo xam ne moom la ñuy jàngale ci école yi ci Arabie Saoudite yu bokkut yi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci école yi yi nga xam ne si moom la ñuy yóbbu ci jàkka yi di di ca di ko jàngal nit ñi ñu jëlee ko fa yi nga xam ne si ñu ngi ko yóbbu ci addina bi ci livre yu njëkk yi nañ ko fi jëlee yëpp defar yeneen yu bees yoo xam ne si mooy remplacer yi ñu fi jëlee mu ne nag waaye nag wax nañ Arabie Saoudite ni ko comme téere yii moom mooy dëgëral xalaatu wahabiye yi ñi nga xam ne si ñoom ñooy teengal ci diine yi moom téere yi nga xam ne si moom mooy euh, leeral wala di dëgëral seen xalaat yi ak teengal gi ñuy teengal comme téere yii la waxuñu leen ni nañ taalif téere yu bees rek de waaye dañuy taalif téere yu bees ñu nekk fi ba pare yi fi nekkoon ñu génnee ko ca àll ba maanaam neen waxuñu pour nañ indi téere yu bees rek de yi fi jëkkoon nekk fi déedéet yi fi jëkkoon dañ koy génnee réew mi ñu indi yeneen yu bees Arabie Saoudite ni waaw ministre bi daal waaw loolu benn misaal bu ma la jox rek la ca centre boobu yii ma la wax yëpp ministre bi ni ko centre boobu moom mooy couvrir yooyu yëpp centre boobu moom mooy seet ñi nga xam téere yi nga xam ni euh, taalif lañ ko muy téere yu bees centre boobu mooy fexe ba euh, téere yi nekkoon ci jàkka yi nga xam ne si euh, moo fa nekkoon yëpp day génn réew mi ñu indi yeneen téere yu bees ministre bi ni ko ba tey centre bi mooy saytu ba tey dañuy wut ay place yi nga xam ni si fa la ñuy former imam yi nee na yi léegi dañ wutal fu ñu leen di former ci ay yeneen i centre yoo xam ni yëpp day aju ci centre bu mag bi te bu ñuy forme imam yi nga xam ne ñooy jiite jàkka yi nee na ñun États-Unis dañuy bokk ci saytu pour mën a euh, pour noonu ñuy noonu ñuy former imam yi maanaam ñu ngi koy bind ci arab li may wax nii da ngeen koy gis yéen ñi jàng arab mu mu ne daal lii daal mooy li nga xam si mooy li ñu ci mën a wax kon yéen bu ngeen xoolee yii am yëpp xam nga ministre bi neena li moy liñ ci mëna wax kon jàppale ni li am yépp nak ci accord bo wala jóge lolo tax comme ñi ngi commencé di doxal ñu jël ñi nga xam si ñooy aima yi wér ak ñent yépp tecc ci bir kaso ren yeen ñi dem makk mën ngeen sédé euh ren ngeen mësa gis ñi ni ku aj ren war nga fay taxi demi rial képp ku dem màkk ci àddina bi mës ngaa dem booy dem ren danga fay deux mille rial ba ndes ku yore passeport États-Unis waa États-Unis képp ñoo fayul taxi boobu loolu jàpp leen ko baax a baax wala ngeen vérifier ko ren ji ku dem màkka te fekk mës ngaa dem fay nga deux mille rial yoo xam ne waa Arabie Saoudite ñoo la ko taxi waaye boo yoree passeport États-Unis la ku yore pasu États-Unis fayoo eh, bu ngeen demee màkk ren di màkk ci aj gi xam nga police u Arabie Saoudite ñoom ñoo daal saytu aj gi ñooy ver blanc yi fi ne vert blanc yi police vert blanc yi ren bu ngeen xoolee vert blanc yi municipalité bi lañ leen jox xam nga ñen ñoo doon saytu aj gi police police u ñoom ñooy doon saytu aj gi ñooy noir blanc yi ngeen gis te euh, police u ya nekk ca États-Unis ñoom ñoo doon saytu ñooy saytu police u Arabie nga xam ni tey jii tey jii maanaam seen serveur u police États-Unis nga xam ni nine one one nine one one seen nine one one jooju wala nine nine one nga xam ni moom ngay maanaam neuf cent onze wala neuf cent quatre-vingt-onze bi nga xam ni moom ngay composé ca États-Unis pour jot police ba ren ji ku dem Makka boo soxlaa police euh, nine one one ngay ngay ngay ngay joti police nine one one ngay joti wala nine nine one neuf cent onze wala neuf cent quatre vingt ngay composé pour boo bëggee jot police u Arabie Saoudite te ngi koy composé ci États-Unis pour jot police États-Unis kon li ñu waxoon commencé na kon eh, bu ko defee ngeen seetaanat vidéo bu baax a baax a baax bu ko defee fii ay une heure de temps yooyu ci kanam tuuti rek ñu dugale leen li nga xam si moom lañ jëlee eh, xanaatu jazira firil leen ko leeral leen ko bu baax a baax a baax ñaan yàlla may ñu dégg ak toba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh